waaw saa si sax at rek ñuy génnee li nga xamante ni mooy beneen koor bi nga xamante ni euh, mooy ci ñàkk seen ñàkk nan ngay nekkee prison say doom génn àdduna amoo kenn ku la taxawal say waajur d'une part ñi ngi fi mais du loo xam ne neex nañu yàlla nag bu defee da ngay c'est compliqué en tout cas ma néeg bu lakk kër amul courant amul gaz donc ñu ne am na koo xam ne yaramam neexul ku dëkk ci néeg boobu lakk génn na bu mu génnee la néeg bi lakk donc xale yi ñu ngi doon ci beneen néeg ñoom juróom ñëpp ah euh, ki ci gën a mag fukki at ak juróom-ñaar la dafa metti donc bokk ndey ak bàyyi vraiment ñu juróomi bant comme ça dafa metti bon maintenant il faut que ñu interroger conscience su doomu aadama yëpp. Euh, boo dëkkee ku yaramam neexut dañ koy yóbbu hôpital duñ ko négliger duñ ko bàyyi ci kër gi euh, ba jéyee di fi am loolu laa jàpp bon ñu si yàllaa ko xam bon enquête police ak sapeur yi dinañ ko mottali mais li ñu wax moom loolu la ñu ko fekkee loolu la ñu wax loolu waaw situation kër moom xam nga kër goo xam ne ay nit a fa dëkk ay mag dëkk nañ fa du ay xale rek fa dëkk ay nijaayam ñu ngi fa nijaay xale yaa ngi fa seen yaay moo fi nekkul seen papa tamit nekku fi donc euh, xale yi rek ñoo fi nekk ak seen ay nijaay donc euh, jàpp nañ ñi daal jéeye am na bon nee nañ ki ko def euh, néeg bi mu jógee en tout cas fi lakk-lakk bi démarré kooku àndul ak sagoom hmm? dafa dépressif donc euh, foofu loolu la ñuy jàngat jàngat boo dëkkee ku wurut da ko koy yóbbu hôpital loolu laa ci mën a def bon maintenant lu ci des mooy vraiment bon sunu borom dogal na ba pare lu ci des mooy ñu toppatoo ñu denc leen ñaanal leen voilà loolu. waaw parce que kër gi ardoise la déjà ardoise yu bëri tàkk na kii baa ngi waaj a daanu donc euh, il faut ñu tëj ko il faut ñu jël arrêté tëj ko mënuñu ko bàyyi noonu beneen jéey amaat fi donc euh, fii ak 24 heures incha allah arrêté dina wàcc ñu évacuer leen dimbali leen ñu fa dëkk ñu xool fu ñu jëm ñu tëj kër gi parce que mënuñu ko bàyyiwaat mu beneen jéey amaat fa parce que ardoise la du dal. ardoise bi lakk-lakk bi jàpp na ko saxaar si jàpp na ko donc à tout moment li fa des mën na daanu donc euh, condition yooyu ñu tëj ko moo gën.